mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jotaay bi Seydina Alioune ñoo ngi leen di siyaar di am mbégte di rafet lu it seen teewaay fii di ci kontaan lool ndax bu ñu waajal daaru ñu doon ndaw bu xeebu ci yoonu Cheikh Moussa seen xel bu demee ci ñun ba ngeen yëkkati seeni tànk ñëw fii ci daara ji ci benn baraak tali bu xonk kon loole lu rëy la su ñun bàyyi def ko su ñun xarit def ko su ñun mbokk def ko su ñun amut benn mbindeef boo xam ne mën nga ko su ñun moom la ko yàlla jagleel mu def ko su ñun bawuñ kenn gannaaw bu ñu waxee mbooleem ku nekk Bahrul Anwar di la woo président Macky Sall sa bawuñ ko ñoo ngi koy woo ndax solution bi nga xam ni mooy defar réew mii yu nekk borom daaroo ko yor jamono ji ci loxom bawuñ premier ministre bawuñ benn midéef boo xam ni yaa ngi ci biir Sénégal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mboolem aajo bu jaam am wallaahi mboolem aajo bu jaam am ci kaw suuf na ko leer ni lay jàppandal aajo boobu tey mu ngi ci loxo borom daaru kon li tax ma ni nag dafa am benn kilifa gu baax muy Cheikh Ibrahima Ngaan ma dégg ci làmmiñam mu ne bu yàlla wàccee ceebo bi maanaam duñu wax ni kenn ku ne cinquante ngay ji dede kenn ku ci la nga am rek ngay def kon du yoon ñu naan jiw joxeel lii jiw joxeel lii jiw joxeel lii ñëpp pay kon kenn ku ci lam la mbir maa lam la jaral mbir maa ngi ca na nga jëfee kenn ku ci nekk wante lépp na tegu ci ndigal waaye jël daaru kenn ku ci nekk xam na ni ah, lañ fay aajo bari na dem ba ay tay oto loxo kese yóbbu ko buñ demee daaru mbooloo fay dajee buñ fa dajee am na lu ñu fay ajo mbirum lekk ya mbirum naan gi maanaam ci gàttal mbirum xéewal yi loolee du loxo kese koy def te it buñ ne daaru ziyaar la te ziyaar ne mooy ziyaadatu mooy dolleeku kon lépp loo xam ne jàmm bëgg am na ko te bëgg mu dolleeku na ko waajal te yóbbaale ko te jox ko boroom daaru it lépp loo xam ne jaam bëgg na am na ko xàkk saa fekkun te bëgg mu yokk na ko yóbbu jox ko borom daaru lépp luñ fay tere wax ma ñu yóbbu ko fa de ko de waaye ko fa yóbbu lépp luñ fay tere wax ma ñu koy moytu de wala ñu ko fay làq de waaye buñ ko yóbbu lépp luñ fay bañ it nañ ko bañ lépp luñ fa bëgg nañ ko ko bëggal lépp luñ ko fay bañ nañ ko ko bañal li la ñuy suñu bop di ci soññ ñepp ay way war nañu xewal ga war nañu ziar war nañu manam na ci ñepp bàyyi xel mbollem ku nekk ci bahru anwar ak ku nekkul ci bahru anwar ta nekk ci ahlu Cheikh musa ta nga baña nekk ci ahlu Cheikh musa tay wuyo ashadu an la ilaha illallah bisub daru ziar daru yokute mbollem julit la yokute mbollem julit la waaye it yokkute mbooleem mbindeef la képp kuy nit ziar daaru sa yokkute la ba ci chrétien bi ba ci juif bi ndax danañu faral di waxtaan di wax nii bu ñu waxtaanee ci taw tawxiid rek mbooleem ku yàlla bind ngay nit rek bokk nga ca waaye bay bu ñu waxtaanee ci murit wala waxtaan ci xaadir wala waxtaan ci tiijaan mën na murit bi bu ñu waxtaan ci tiijaan mën na ne du ma bokk tiijaan bi ñu waxtaan ci murit mën na ne du bokk xaadir bu ñu waxtaan ci murit mën na du ma bokk laayeen bi kazalika waaye bu ñu waxtaanee ci yàlla murit bi gis ci boppam tijaan bi gis ci boppam xaadir bi gis ci boppam laayeen bi gis ci boppam chrétien bi sax gis ci boppam waaye juif bi sax gis ci boppam kon waxtaan ci yàlla mooy waxtaan ci laa ilaha illallah te bis boobu daaru dara samp ko lu dul laa ilaha illallah dara samp ko lu dul tawhid te woote wuñu fa leen lu dul tawhid mooy dëkk boo xam ni foo toll ba ngay dem boo àggee dugg sa dëkk bi rek maanaam sa tolluwaay boobu réer na la ndax nga am nga beneen tolluwaay bu faw ko booba loo xam ci xam-xam sa tànk bu tegee daaru xam-xam boobu réer na la ndax beneen xam-xam faw xa na xam-xam da nga xam yëgaat leneen ci xam-xam bu faw xa loola kon daaru dugg fa yokkute la dem fa yokkute la rawatina nag bisu ziar bii nga xam ni euh, mboolem kuy njabootu Cheikh Moussa dana fa daje ñu leen di woowee yàlla yàlla yi xaadir laa man laa yéen laa man nangam laa loolu du islam la ilaha illallah wahdahu la sharika lah islam jébbalu ci yàlla rek la islam jébbalu ci yàlla rek la kon liñuy dénke moy mbollem kilifa go xamni yaangi tok ci 16 talibe yi tok ci souf na la birni bo len meunta agalé ci yàlla wan len ni yàlla xamal len yàlla sa 16 bobu nga tok dey yàgg mom ba safara ak ko meuna doon li tax moy yoonte fu wax ni gindi benn jàmm moo gën àdduna ak li ci biiram gindi benn jàmm yow xoolal tey ñu la topp ñëpp wan ginnaaw ñépp jublu la yow nga tënk leen ci réere yàlla li ci gën a doy waar nag mooy nga doon ne kilifa nga te yàlla duñ ko gis te naan yàlla duñ ko xam te naan yàlla duñ àgg ci moom ak koo mën nga ak koo mën a doon yéefar nga yàlla duñ ko gis moom yàlla duñ ko xam yàlla duñ àgg ci moom képp ku koy wax rek yéefar nga rawatina nga ne yow ci kilifa nga kilifa kilifa diine nga yow doo kilifa diine kon nañ xam ne kilifa diine la ko fal mu doon kilifa mooy àggale jaami ci yàlla wan jaami yàlla xamal jaami yàlla ñu jaamu ji yàlla buñ deexee yàlla fay leen nga jaamu ji yàlla boo dee yàlla fay la kenn waxuñ ko ngir tuutil kenn it waaye dañ ko wax ngir nit ñi yeewu sëriñ bi toog introsé introsé waat boppam taalib bi toog introsé waat boppam xam ndax li yàlla wax ma nga ca wala li yàlla wax newu ca kàddu yi mu njëkk woon nañu tënkeewaat rek mooy wa tabiix sabila man anaaba ya lii la yàlla wax toppal yoonu ki delsi ci man yàlla bépp sëriñ boo xam ne demut ci yàlla bu la waxee ab sëriñ la dub sëriñ